yëpp asalaamaaleykum mbokki taalibe yëpp ginnaaw bu ñu sant yàlla suñu borom julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu yaakaar teeg ëllëg Seexul Xadim sant suñu buntu ci sëñ Tuubaa moom Seex Anta di baalu ak ñëpp di tey am mbégte ak kontaan rek di itam mboolem ñi nga xam ne bi ñu wootee wu si ñun la yombul waaye nag lépp day sëñ Tuubaa ndax génnul sëñ Tuubaa ndax li ñu woote day sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa rek a fi nekk rek a ab taalibu Sëñ Tuubaa la ni bu taalibu ci ñun di sàkk ku ko jàppale ngir Sëñ Tuubaa ñun nag ku dawul ci ñun ngir Sëñ Tuubaa nga daw dajee yoon ngir Sëñ Tuubaa loolu moom sababu sama tey jii def mobilisation bu mag bi ànd ak mbooloo mi yëpp fas yéene dem ak teeroo sama gan muy président bi dikk ñaar parce a jàpp ngir bu mission bi waaw loolu moom ndeysaan euh, jox nañ ci ay appels yu bari ndeysaan waaye euh, li ma moom ci du du ci li ma wax nii rek mhm. ci loolu waaye delluwaat ba tey rek moom taalibu Sëñ Tuubaa la mhm. bari dañoo xamul ne man sama diggante moom mhm. sama turandoo bu baaxe Mbàkke mu ñu euh, yaakaar naa ne ku xam sëñ bu baaxe xam digganteem ak ci ma diggee benn la leen bàyyi xel bokk na tam ci taalibe sëñ ñu gënoon a ràññeeku ci njabootu sëñ bi te ku ne xam ne sama diggante ak sama turandoo moom sama turandoo moom la ko dénk boobaak wax dëgg yàlla du tey ni ma ma dikkee nañ ko jàppale te protéger ma loolu mu ngi ko waxee ci Amérique wax dëgg yàlla New York loolu du tey ba tey jii bis bi moo wootoon ni ma protéger bi ne sa turandoo mu ko doon ci sama diggante yow ngir nga def ko day dama yaakaar ne bis rek la doon xaar ma bëggoon ah ñu jàppale te sëñ Tuubaa rek tax ah dimbali ma wóor ma taalibe yi ah ñu jàppaloon te sëñ Tuubaa tax ma ne ko loolu dinaa ci sawar ndax ndigal jëfe te taalibe waxtu noppee jëfe ndigal rek mooy ñi moo ñëw bu ñuy sang muy wax nooyal bu taalibe ndigal jëfe rek loolee waral ndigal bi joxoon moo sabab suñu déclaration bi waaye loolu bu jaaxal kenn ndax man na sëñ Tuubaa ku ne ku xam xam ne sëñ Bamba teral na ku ma xam xam ne moom Cheikh Anta sagal na ma siggal na ma ku ne xam na ne son borom mi ngi may teel euh, ndax yaakaar naa ne ba may tabax këru 100 millions boobu wax dëgg yàlla dugguñu ci lenn lu ñu wax langue politique te ba tey jii tamit tamitam Sëñ Tuubaa lan ànde ngor lan ànde ah, ak taali bi ak sëriñ rek lan yëpp rek ñu mancé rek maanaam ànd ak dal te lépp ci taali bi rek ah, ci mu sëñ bi ndax yaram teggin mooy lépp lu mu jiitu rek loolu moom fa tabaarakallaahu yàlla mën na caa def tawféex xam ne ñun ñëpp réew mi moom nar eh, yaakaar naa réewum Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar nanu góorgóorlu ñun ñëpp ànd ci jàmm di yëkkateendoo di tegandoo xam ne ki yàlla dogal ci moom ne mooy gañe loolu moom yàlla noppi na ca dogal ba yàlla noppi na ci démb tey jii ba dikk bu nu sañoon nag ñun tey ñaan dañuy ñaan nag yàlla moom moo xam la muy def mm-hmm. waaye bu nu bu nu sañoon tey ñaan dañuy ñaan yàlla mu wax dëgg yàlla président Madické Niang yàlla def ko mm-hmm. mu nekk président Sénégal xam naa ne am na ci yéene Sénégal te dégg nga mu léegi mm-hmm. ma àndee moom waxtu ba mu jëlee kaamil sukk ci kanam si Tuubaa ne bis bu naree jël réew mi war diin wala mu war maanaam l'islam wala mu wër suñ Tuubaa yàlla na ko alxuraan alal man boobu laa ko jàpp xam ne kuy jàpp sa borom waaw ma di leen sant itam yéen itam asonaa mi eh, di ñaan rek télé bi jëm ca kanam ak a ngi def liggéey mm-hmm. a yërëm wax dëgg yàlla mbooloo mi leen di def ak leen doon tàncee mm-hmm. waaye ngeen respecté seen liggéey lool mm-hmm. ah, ndax itam mbir moom dalay jaral te loo doonul ab taalibeem doo doon sëriñam mbooloo mii ngeen gis fii tey yaakaar naa ne bu ngeen juddoo Mbàkke yaroo fi ba tey du lu kenn ma sa teg la loolee nag li ko ko may ah, mooy wax dëgg yàlla kennal bu mu kennal seen ba kenn ku ci nekk ci ñun say waajur gina leen loo xam ne wax dëgg yàlla bari na ci ñoo xam ne sax mosuñu yëngu ci wàllu politique waaye jëmmam tax na ñu dugg ci ngir kóllëre gum seq ak seen waajur bor bu mu lebal seen waajur te mënu leen koo fay kenn ku ci nekk jël sa doom xalaat ko dugal ca bor boobee te te tey xalaata xalaat ni bor bu des na loolu ñu sëñ Tuubaa rek ko wax naa la sànq ne la ba may liggéey kër 100 millions di dawal oto 15 millions boobu xamuma xamuma xamuma ma dikk mm-hmm. xamuma lu may wax kenn yaakaar naa ne bu doon politique wala alali àdduna yaakaar naa ku gën a tabee président Abdoulaye Wade sunu maam yàlla sàkk ko mm-hmm. wala bu ko sàkkee bëri mm-hmm. kenn mësunoo gis ci buntam mu yàq lu kenn dégg ñaan fii la nekkoon fii la njëkkoon a nekk fii fii la nekkoon nekk waaye lépp sotti ci def ci la rek man sëñ Tuubaa daal mu ñor kenn ñoruma groupe sëñ Tuubaa